yàlla moo digle julli waaye du julli yàlla moo digle koor doo gis ñu ne yàlla ngi woor moo digle dem màkka doo gis ne dem na julli dem na màkka waaye lenn la wax ne def leen ko te maa leen ci jiitu mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mu wax ne yaa ayyuha allazina amanu sallu alayhi te dafa dëgg wax ne inna allaha wa malaikatahu nee na yàlla ci boppam moo jiitu di julli ci sayyiduna Muhammad malaaka yi topp ci ñoom di julli ci sayyiduna Muhammad kon nag bu fekkee ne dañ bokk min alladina amanu kon sallu alayhi kon bu fekkee ne gëm ngeen sayyiduna Muhammad na ngeen julli ci moom wa sallimu taslima kon fa salaatu wassalaamu ala insaanil kaamil kon ñu ngi julli ñu ngi ñaan xiiwal ak mucc yàlla sotti ko ci kaw Seydina Muhammad mi nga xam ne mooy nit ku mat wa al insaanul kaamil fi axlaaqihi wa qaala subhaanahu wa taala wa innaka la ala xuluqin azim yonent bi dafa mat ci jikko li ngeen di wax ne l'homme parfait amul en gain Seydina Muhammad l'homme parfait la c'est un homme parfait amul dara tàkk amul zéro faute dinañ ko mën a wax ndax yàlla moo xool ba mu yàgg bàyyi na fi askan waaye tàggu ko ci askan lim ko tàggee mooy wa la ala xuluqin azim yonent bi la yàlla wax ni bu fekkoon ne jikko dafa nekkoon benn bâtiment bu taxaw nee li nga xam ne moo tiim bâtiment bi yëpp ci kaw nee na mooy jikko te mooy Seydina Muhammad nee na moom moo yor jikko yooyu Muhammad moomu kaamilun fi aadabihi fi aadabihi dafa yaru moo tax alquran wax ne alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka daalan fa hada wa wajadaka ailan fa agna koo xam ne yàlla nee na maa la fekk ngay jirim ma làqu maa fekkoon nga ñàkk ma fexe ba nga am maa fexoon nga nekk nga nga xamatuloo woon nga fexe ba nga jub jub ma fexe ba nga jub radiyallahu رضي الله عن سادتنا الصوفيين الذين وصفوا سيدنا محمد بقصائد متعدده ma ne kon yàlla ñu yàlla fayal suñu mag ñi nga xam ni bind nañ ci yonent bi lool ba sopp ko rek te ni ñu ko soppee noonu la ñuy jëfee ay digleen noonu la ñu bàyyi ay tere Seydina Muhammad moo naa wax ne insaanu kaamil fii xuluqihi wa fi xalqi ku mat la ci li ko yàlla bindee Ibnullah ibn Abbas moo wax ni Seydina Muhammad moo wax ni maa waladani min sifaahi jahiliyati shay'un maa waladani illa nikaahu islaami yonent bi moo wax ni Ibn Abbas nettali ko nee na man fi ma jaar silsile bi sama askan nee na amul kenn ci mën a jàpp kenn mu ne ñi nga xam ne ñoo ma jur ñëpp kenn ku nekk dañ nga takk farata nga doog a waaye amul kenn ku jàpp yoon bi moo tax imam Busiri am na ci xasida bu mu wax ne lam tazal fi damaahiril kawni tuxtaaru laka al-ummahaatu wal abaa mu ne yàlla nee na mosuma dëñ di la sélectionnel fan ngay jaar ba ñëw di la ko di ko segg benn kaar benn fi danaa'iril kawni tuxtaaru laka al-ummahaat wal abaa ñu dina tànnal ay wayjur yu jigéen waaye ñu dina tànnal ay wayjur yu góor sallallahu alayhi wa sallam moom moom Seydina Muhammad mag gi muy yàlla def mu mag ci ni ko yàlla bindee moo tax imaam al-Busiri ci bibliam bi mu wax ni fa huwa moom Seydina Muhammad alladi tamma maanaahu suuratuhu wa suuratuhu summa stafaahu xabiban baakun nasar mu ne Seydina Muhammad nee na mooy ki nga xam ni maanaam yëpp dafa mën sëkk ci ni ko yàlla bindee bi mu matee nag ca la yàlla jël nag def ko mu soppeeku. bu set wécc ci askan xool nga moo tax sayyidatina Aïcha ne lañ benn bés dafa nekk ci biir néeg bi mel ni dafa doon ñaw busa bi daal amul lu mu ko niite te booba tamit jot ne nag li may jékki-jékki noonu rek Seydina Muhammad taxaw ci buntu néeg nee na mu mel ni benn lumière mu éclaté ci biir néeg mu ne jàkk puso bi mu doon far bi mu ko faree rek ñu ne ca la def benn xasida te loo ko wax nit xuliqta mubarra'an min ka annaka qad xuliqta kama tashaa mu ne yow mel ni Muhammad bi la yàlla di mu di la laaj noo bëgg a mel moo tax mu gën a taxul ñëpp. xam nga loolu sax ne dañ la woo bu nga ñëw ñu laaj la noo bugg a mel nga naan bopp bi na mel nii nopp bi na mel nii kanam bi na mel nii ba yaay dàq ñëpp sallallahu alayhi wa sallam yal nañu yàlla may ñu sopp moo tax mu ne munazzahun moom Seydina Muhammad an sharikin fi mahasinihi fa jawharun fihi xayru muntasim maanaam yonent bi daal bu ko dendalee ak ci melokaan ci taar ci tabe ci jikko mu ne bu ñu doon xool taar yi gën a fës mun nañ wax ne bu na or ñu tànn bi ci gën a baax nee na moom lañ defaree Seydina Muhammad waxinu shaahir waaye xool na Seydina Muhammad imam al-Qurtubi bi dafa wax ni nee na taaru yonent bi nee na ñun gisuñu ko bu ne ndax bu ñu gisoon taaru yonent bi nee na suñuy bët bu mën a attan leer boobu leer boobu suñuy bët duñ ko mën a attan moo tax nee na gisuñu gisuñu leeru yonent bi mais dàggat na ram nañ gis sallallahu alayhi wa sallam kooku boo ko buggee naqal keneen ak yàlla kooku ku ko bugg a nattale keneen yaa ngi juum moo tax leer la moom Seydina Muhammad xool ne ni ko yàlla préparé ci taaram ci ni mu ko bindee moo tax kenn di werantewul ne moom dañ ko jox al jamaal kulla maanaam taar bu doon ne junne la wala téeméer moom téeméer yëpp lañ ko jox قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جمال الخلق كله ولكن هذا الجمال النبوي متوج بأمرين عظيمين الأول الهيبة الجلالية الثاني النور الضياء وذلك لم يفتتن به من يراه بخلاف يوسف الذي أعطي نصف الجمال mooy yonent bi la yàlla jox taar yëpp téeméer mu ne waaye taar bi dafa am ñaar yu ci laxasu dafa am haybatul jalaliya waaye am yi tamit nuurul qiyaam ni ko yàlla bindee ci jëmb ji xayma boobu nga xam ne saxaaba yi daanaka mënuñ ko woon a fixé waaye noonu la yàlla def benn leer divin bu nekk ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ne looloo tax Yuusufa genn wàllu taar lañ ko waaye ba ko jigéen ñi gisee dañu tiit moom Yuusufa looloo bi ma dajee bi ma ñëwee ci kër buur bi taaru Yuusuf jigéen ñi mënuñ ko si bon moo tax Zalixa gis ko rek am du la sagoom naan xarita la mënatul ànd ak sagoom bëgg rek ànd ak Yuusuf waaye xool nga loolu dañu wax ne Yuusuf yàlla moo intervenir bu intervenir loolu rek nit a gi mooy ñëw rek waaye nag law laa Abraha burhaana rabbihi moo tax am nañu wax ni bi ko ndaw si waxee ne kaay mu jàkkaarloo moom rek ne la dafa taxaw ci kanamam rek gis ñu bind laa taqrabu zina mu commencé ni ndaw na ndaw si forcé ko mu dal mu xëcc ko bu mu bu mu porté ko Cheikh Ibnu Taymiya wax na ni nee na Yuusuf li mu waroon na mën a tax mu àndal ndaw si yëpp daje na ci Yuusuf mu ne ndax bi ci jëkk Yuusuf a célibataire la ci jamono bi bi nee na Yuusuf fa mu nekk dëkku fa doxandeem la fa ñeenteel bi nee na ki koy provoqué mooy jabari buur bi te bu fekkoon ne ci jamono ji la am na yoo xam ne ci liñ ko mën a waxee bës la koy def jaawari buur provoqué la nga ànd ak moom bu subaa nga dem ci journaliste yi rek ñu bind ko ndax moo ko doon sàkku man sàkku ma baax moo ko doon sàkku waaye Yuusuf dafa daw lu tax mooy parce que innahu min ibadina al muxlasin yàlla waxul min ibadina al muxlasina bi kasri waaye dafa wax ne min ibadina al muxlasin diggante muxlas ak muxlis loolu moo leen wutee ay muxlas mooy koo xam ne mënul bokk def bàkkaar innahum min ibadina al al muxlasin al muxlasin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag ñee gis Yuusuf wala maa ay ñu ak bannahu wa qataana ay nit ba ñu gisee Yuusuf rek dakkale ko seen salo commencé di dagg ay ay pomme de terre ba faf di dagg sa loxo yi xamatoo foo ne naan haa ah, maa haasha basha xaasa billah ba xaasa bashar jigéen bu jaar rek nga ci du nit taar bi yóbbu leen ñu xool Yuusufa tax complètement booba ba fekkat jabaru buur bi moo ko def ndax dañ ko doon accusé ne dafa doon sàkku Yuusufa bi information bi jàllee mu ne naa ut fexe pour xam ne am na loo xam ne du man rek mënu ma ci dara mu dajale jigéen ñëpp invité leen jox leen ay ay fourchette ñi di dal fii mu jékki-jékki rek solal Yuusufa ba mu macha allah bu ne ko génnee seen i ñoom romb romb lu woon waaye bi Youssouf a ne téem ñoom ña doon accusé eh, eh, soxna si ñoom ñoo njëkk a caali booy commencé di dagg kenn ku nekk yaa ngi dagg sa pomme de terre boo pomme de bi noppi waaye mënatuloo téye sa loxo nga continué dagg sa loxo am na ñoo ne dafa mel ni seen dafa déclaré sax déclenché seen règle ci tiit boobu ñu tiit gis Youssouf naan ko ah macha allah in hada illa malakun karim ah kii du nit kii malaaka fekk na du malaaka nit la dafa am lu yàlla def ci moom. waaye nag ñu ne Seydina Muhammad jalaaliya bi nekk ci moom moo tax bu ñu ko gisee bu ñu def comme Yusuf dañ doon def ci moom ndax ja nubuwa bi ak jalaaliya bi moo tax Seydina Muhammad boobu moom la yàlla wax ne qad jaakum min allahi nuurun kon Seydina Muhammad leer la. nuurun wa kitaabun mubiin te nag aktarul ulama nee na nuurun googu dana mooy Seydina Muhammad Xataada moom la wax ak al-Qurtubi ak ñu mel ni moom Seydina Muhammad boobu bu ñu toogee fi di nooyi Seydina Muhammad sunu arwaax yi bu duloon Muhammad bu ñu fi nekk moo tax sunu maam Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon na ko. fas'al ujibka bi anna nuural Mustafa tahurat bihi al arwaahu wal ajsam boo laajee ñu tontu la te mooy Seydina Muhammad jëmm yeeg arwaax yëpp Seydina Muhammad moom moo leen di alimenté moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li tax sunu maam kenn ku ci nekk topp nga ko. jàpp ne daal moom yow doo dara ci kanam Seydina Muhammad bay na xaw Seydina ñu baax te képp koo xam ne yaa ngi nekk ci réseaux sociaux yi muy YouTube ak yi xam nga ni léeg-léeg nga déglu benn vidéo nit di ko wax ci kilifa di ko jox garaat yoo xam ni man maa koy waxal man seetaan naa am na koo xam ne li mu wax ci sunu maam ju baax loolu ñu jóge ci magalam bu yàgg rek la mu wax ci moom bu maam borom Tuubaa ba mu ñëw mu rendi lu tax boo jëlee Seydina Muhammad sa sa boo jëlee sunu maam boobu moom te gisaguma benn doomam wala benn sëtam bu ñëmee wax loolu ci maam borom Tuubaa gisuma ndax xam nga ki nga jax ne moo ëpp garaat Seydina Muhammad te moom moo wëlbati ku tuddee bu doon Xaadimu Rasuul kon contradiction am na foofu kooku benn la ci maam borom Tuuba boo demee ci raayam xoolal dafa wax ni fala taqisu ibna abdillahi bil fudala inna al kawakiba yufiha sinimaaru mu ne haa bu leen jéem a natt mukk doomu Abdoulaye ak borom njëneel yi mukk waaw xam nga ñàkk a jàng wala bu bare réer ci biir njàng mi mooy tax nit di jox sëriñam garaat bu ëpp yonent subhanallah Cheikh Tidiane Chérif radiallahu taala nee na ñoom nitu yàlla yi ak saxaaba yi mu ngi mel ni sànqalañ buy dox ci suuf ak picc muy naat c'est-à-dire xoolal différence bi rek picc muy naat ca kaw ak sànqalañ buy dox différence bu gaawaay bi noonu la toll seen diggante waaye xam nga ne ñooñu duñu wax ne yonent bi ñoo ñoo gis ñoo sut yonent bi nag mi ko ñëw di ko fan nga ko teg ci bàkkan ci ñàkk a xam ci ñàkk jàng parce que maam borom Tuubaa bi mu waxee ne bu leen ko natt ci kenn ci borom ñeneen ñu ne ko lu tax mu ne xool nga étoile boo déggee ne ñu ngi feeñ rek nee na jant bi moo ñëwagul waaye bu jant bi ne teel li mu étoile bu fi nekkoon nga doo ko gis te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lil Mustafa xayri xalqillaahi manzilatun la mu ne yonent bi am na benn ngëneel bu nekk ci moom am na benn wàccuwaay bu nekk ci moom mu ne buñ ko jéemoon a dendale ak mbindeef yi ñoom ñëpp danañ mujj am complexe. léeg-léeg raamal wara nay la fadli musriina lahum wal fadlu inda rasulillahi farraru mais kii wàcc na damay wax ne ñun ñi gëm tasawuf nañu bañ a may ñi bañ tasawuf lu ñu attaqué. bés bu nekk ma di ko wax ñun ñi gëm tasawuf nañu bañ kuy attaqué suñu tasawuf jaaree ko pour mun a atteindre suñuy sëriñ kon nag lépp lu ñuy wax rek nañ ko teg ala wa sunnati ndax suñu mag ñi kat kenn ku ci nekk boo wax ci Seydina Muhammad di nga fàtte sa bopp kenn ku ci dem nga yonent bi wax ci moom ba amatuloo loo wax ci moom nga ne kii daal yàlla moo ko bind nii moo ko neex kon loolu nañ ko bàyyi xel maam Maodo waxoon ne min kulli wasfin hamidin haada afdala tafdilin rajaawul baraaya yow ma mustahil mu ne moo dem yonent bi daal liñ ko gàtt gudd gàtt daal li nit ñi doon wut yëpp yëpp yëpp yëpp dajale ko moom daal fekk nañ Seydina Muhammad toog ci kon moo jëm jëmal a topp ci gannaawam rek maa ngi leen doon ñoom wóor na leen ne ñu mel ni yonent bi waaye danañu fexe yonent bi fu mu te tegoon tànkam ñu teg fa seen mos doon na du xees waaye buñ ñëwee fekk mu marqué loolu moo am solo kon yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yàlla indee dafa wax ni laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nee na jël leen yonent bi muy seen modèle muy suñu royukaay xool nga ab jullit boo royee Seydina Muhammad foo dem yaa fay gën moo tax danañu dana maa métti trop jullit bu mel ni man doyadi doyadi doyadi sa nekk ci caaxaan ba koo xam ni sax gëmul sa diine ji wala du jullit ni yow mu gën la sax yow dëgg-dëgg jaaduwul ndax léegi nga dëkk ak koo xam tubaab la comportement bi mu yor ci dëkkandoo bi comportement bi muy jëf jëflante ak yow ci liggéey bi dana dem ba boo xam ni kii li muy def ni lislaam la ko santaane moo tax Muhammad Abdul Wahab waxoon ni moom dafa dem Orient de la fekk naa fa ay jullit waaye lislaam nekk fa mu ne mu dem Occident mu ne fekk naa fa lislaam waaye ay nekk fa ñu ne ko ñaari wax yooyu lu tax mu ne Occident li tax ma ne fekk naa fa lislaam waaye jullit nekkuñu fa mooy ñoom du ñu ay jullit waaye li ñuy dundee ci biir penc li système mu lislaam ci bañ a yor xam nga tabax na tër mais lislaam nangu ko ñun looy gis suñu dëkkaale yi dangay dëkk ci kër xamaloo ki nga dëkkal dafa feebar xamaloo dafa liggéeyoon wàcc nga taal sa rajo rek moo xam da ngay musique moo même boo doon jàng alquran jaanul wàññi ko ba mu yem ci sa topp moo tax ku ci bu ñu defoon ndànk yomal xiyaam ñun suma kalaat gi leen di yóbbu maara ni daal di fële mooy àq dëkkandoo dañ koy xeeb nag te yonente bi daana wax ne di wax ci dëkkandoo di wax ci dëkkandoo ba ñu yaakaar ne yonente bi dem nañ ba yaakaar ne ku am dëkkandoo bu fi jógee rek dafa la war a doon wax ne am na jaamu yàlla ñu mënul seen bopp di sàkku ndimbal ci jullit bi bés bu ne ma wax ne ñooñu di sàkku ndimbal du ñëw ñë du ñu ñëw directement ci jàkka ji dañuy dem ci imam ne imam bi na dama am problème xam nga dama nekkul wax na mais dama wax ne imam jumaa yi ku ci nekk waroon nañ la defal salaire bu nga nekk xool nga boo leen laajoon ñoom imaam bi ne li ñu daj ci nit ñu fa ñëw te léeg-léeg du mën a ñëw ci jàkka ji la laaj poosam lay génne jox kon ñi nga xam ne yàlla mën loo leen na ne léeg-léeg da leen di roog da leen di wut benn enveloppe rek ngeen fekk fa imaam da ko jox def ko hadiya kooku maa koy ñaan sama bopp di ko ñaan ñeneen Seydina Muhammad boobu nag war nañ koo roy ci di ko yàlla defee mu bokk ci ñu bëri yërmande trop kamaalun fi rahmatihi moom dafa mat ci yërmande ñu nag fi mu ne nii yërmande moom dafa mel ni dafa jeex gis nit ku nga yërëm ko gis ma xale gis xale gis mag yërëm ko loolu moom jeex na ci Sénégal moo tax ne daal xale yi bu ñu moytuwul ñoom ñëpp ñu doon safar lañ jëm dugg ci oto man moo xam ne mënul taxaw mu wóor la ne gis nga ko de waaye nga sëg fan nañ ko ba léegi ay la ñuy jël def bi seen nopp yi wala ñu sol seen i noir fumé wala ñu yor benn <laughs> di liir liir te liirul dara bañ a may góor gi rek wala mère bi moo tax ñu sëgg rek te bu boo même boo ko xamoon nga seen jigéen wala góor mag yore lu diis dangay taw jëkkalante jiyal ko bagage yi ba mu dem mu dem te xool nga dem naa benn tukki bi ñu wàccee te benn góor mu ngi sol yor benn affaire bu diis xale bi def ko service taw ba yaakaar daf ko xam mu ñëw jëlal ko bagage dimbale ko ba yóbbu ko fi mu war a arrêté ay bagage te xamu ko tey bu doon fii Sénégal fii dafay xool fële du xool du faal sa paa xool nga loolu nag fee jóge bàyyiwuñu ko fi ñu bëgg a yegg duñ fa yegg ndax innamal umamul axlaaqu ma baqiya fa in hum dahabat axlaaquhum dahabu moom la Ahmed Cheikh waxoon yonent bi nag moom la yàlla waxoon wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent bi moom la yàlla wax ne dama la yónni pour nga nekk yërmande ci mbooleem bindee fi mbooleem bindee fi nag ki gëm a ngi ci ki gëmul a ngi ci bàyyi ma yaa ngi ci garab yaa ngi ci Seyduna Muhammad am na yërmande ci fépp am na yërmande ci ba mu demee Taif noon yi dem jiitu ko boole ko dof yi ak xale yu yaretu ko yi ñu ko sànni ay xeer boo xaañ ko moom lay tëjee éliman ñëw na bi ñu ko xaañee Jibril ñaan na ko yàlla joxe nam ndigal ci montagne yi ñoom ñëpp ñu wëlbatiku rek taayif far sa deret ji buy laal suuf taayif dootu existé waaye Seyduna Muhammad ci yërmande nanguwul deret bi di roogaat waaye bu deret bi commencé wadd rek bu ñu ko raay ci yaramam pour bu mën dox nga xam ne bu doxoon rek àddina tukki kon nag kooku jaar nga jaar na yoroy ci yërmande kon yàlla ñu yàlla def ñu bokk ci ñi nga xam ni danañu jël Seydina Muhammad mu nekk seen modèle incha allahu bu ba ñuy dem ci mawlud bi yi ñëw yëpp ci jikko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy wax pour mag ñi xam pour nit ñi xam ne mag ñi li ñu doon sosee gàmm mooy wax jikko Seydina Muhammad boo xamee jikko yi mën ko roy waaye wax na keneen koo xam ne daana yoon son naan yonente bi bu ko defee nga xam loola nga mën ko moy kon yàlla ñu yàlla fayal suñu mag yi yàlla yàlla mottali seen yéene lépp loo xam ne bàyyi nañ ko fi ci duraat yàlla ñu yàlla def ñu mbooloo ko wa ma dalika amalay taati wa salaamu aleykum wa rahmatullah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد الله alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm wajur li nga xam ne mooy wajur bi doon tax ndax alquran mi fu ñu koy wàccee ñu jàngee xam moom bu fa teewlu soxla bu mu mën a doon yàlla faj ko ci loolu rek moo profité ci ndokkeel suñu gan di Seydou Mouhamadou Habib di muqaddam bu mag ca Gambia fële ca Jundum nga xam ne kenn ci euh, mu ne Mawlana Cheikh Amis moo ko teg muy Alxaaji Seex Umar Ture ñu ko xam ci Seex Umar mu Baay nga xam ne Baay waxoon na ci xam ne li kulli nabiyyin xawaarijun wa xawaarijun fa faydatuhu Seex Umar kooku Baay ko waxoon ci euh, moom Seex Umar Ture te ba demee ci dang Fatick jàngukaay yi lépp lu ñu soxla pour jàng rek moom ko muy école juma daara de géew jàng pour perso xam-xam kon dëgg-dëgg buñ jullee ak moom tey am na nga lu rëy ñu ngi koy sant yàlla bu baax di ko di buñ jàng tamit ba pare danañ ko xam ne ñoo am yàlla incha allah. la ilaha illa allah allahu akbar wa lillahi alhamdu bismillahi rahmani allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar la ilaha بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يكن له كفوا احد الله اكبر لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس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 ولا فاسدا إلا أحسنته ولا ميتا إلا رحمته لك فيها إذا ولنا فيها صلاة يسرك ولا عافية إنك على كل شيء قدير وفي الإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اللهم علمنا منه ما جهلنا صلاتنا وحبنا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 إنك أنت الوهاب اللهم ما شئت اللهم المعتدين ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين إيماني وتهدنا لعمل الإحسان وتب إلينا وانصرنا متينا أدل حقوقنا وأجلنا وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة شفيع يوم المحشر خير الورى من فتح به الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما عليه صلى ربنا وسلم وفاض بالخير لنا وعمما اللهم صل وسلم yàlla na ko ci ma si xam ko bu jëriñ topp sama gàllankoor yàlla na ko nekk xam ne moo doon tàggal xale bi bàqara ba foofu itam noonu la. loolu ñun xamal nañu ne bàqara ba foofu it noonu rek la. sang bii doon waxtaan. sang bii nga xam ne moo doon waxtaan léegi. bu fekkee fàttiwu ma. bu fekkee moom mii fàttiwul. mi ngi xeewee waxtaanam bi yonentu demee demee demee Taïf. mi ngi xeewee waxtaanam fi nga xamee ne fa la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam demee bañ jot ko nàccal. bañ jot ko nàccal. booba li yonentu bëgg rek. booba li nga xam ne moom la la waa Quraysh bëggoon rek la waa Quraysh bëggoon rek Abu Jahl ak ñi ci gannaawam a Jahl ak mboolem koo xam ne ma woon ci gannaawam alquran suufe rek mu suuf rek alhamdulilah alhamdulilah lii nuntu bëggoon xam na nga xam ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëggoon xam na Abu Jahl ak lañ bëggoon amul Abu ci sant yàlla bu baax loolu kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax. Euh, alhamdulilah ñëw nañ fi tey. alhamdulilah ñëw nañ fi tey. ñu ngi dal fële Kër Massar. ñu ngi dal fële ci Kër Massar. ci suñu mbokk Ousmane Touré. ci suñu mbokk Ousmane Touré. ànd ak suñu njaatige bii. ànd ak suñu beneen njaatige muy Mass Thiam. ak Baye Thiam nii. mu ànd ak Baye Thiam nii di wax. ñuy wax Babacar Touré. ak ku ñuy mu ne jumaa yi de bëri nañ. mu ne jumaa yi de bëri nañ di ragal lool. waaye su fekkee mënumaa dem jëppal. waaye bu fekkee ne mënta jullee jëppal. fii la tànn. fii la tànn. wala ci Ibrahima Sall. wala ci Ibrahima Sall. waaye. waaye. démb ma waxtaan ak Maamawar bi tey. démb mu waxtaan ak Maamawar bi tey li nga xam ne moom la jàngal xale bii. xamal ma ne ma. mu xamal ko ne. xale bi mottali am na xale bi mottali alquran ni ki tey si aj mooy kon xiw woowu ma fàtt mu ne kon xiw woowu nga xam ne moom lañ war a am ci jumaa jooja du ñu fàtt alhamdulilah yàlla baaxee nañu fekkee nañu alhamdulilah ñu ngi yàlla yàlla baaxee nañu ñu fekke ko euh, xale bii xale bii bàyyam mi ngi soog a bokk ci moom tey bàyyam mi ngi bokk ci moom tey ba tax na man yaayam lay ndokkeel ba tax na moom mii yaayam lay ndokkeel nit nit waxtu wu melee lu baax waxtu woo xamee ne mel na meloo wakaanu bu baax baay ja bokk na ca baayam daal di bokk ca xale ba nit nu mel rek nit nu mel rek ñu tudd ci ndey ja ñu tudd ca su baaxee ci ndey ja ñu tudd su melee safaanam baax su melee safaanam baax ñu tudd ci ndey ja ñu tudd ca ndey ja mu mel ni sëy mu mel ni sëy contrat la boo xam ne ñaar ko set contrat la boo xam ne ñaar ñoo ko seq. te bu yàqoo ñu jiiñ ko kenn. te bu yàqoo benn contracteur lañ koy jiiñ. kon maa ngi ndokkal sa yaay. kon mi ngi ndokkal yaay xale bii nga xam mën a jàng naa ci Baye Ibra Niass. dégg na ci Baye Ibra Niass fële ca Gàmbi. radiyallahu anhu. radiyallahu bi tey xam na. sëriñ bi tey nii xam na ko bu baax. bi ku ñuy wax Ahmed Niass. bi ku ñuy wax Ahmed Niass. mooy mi Ibrahima Mboussi doon jàngal. muy li nga xam ne Ibrahima Mboussi doon jàngal fële mu bay Fatou Omar Fatou Diallo mooy moo moo ko fi indi woon. Mouhamed moom Nazir mu bay Omar Fatou Diallo moo ko fi indi woon. keroog bi mu tëddee alxuraan. keroog bi nga xamee ne tëddee ne. dégg na Baye Ibrahima Niass wax ne. jigéen su wattu alquran su wattu alquran eh, sa bu jutee doom ju wattu alquran bu jutee doom ju wattu alquran way naa bon way naa nekk naa féq way na bon way na nekk naa féq kon soxna si kon soxna si alhamdulillah alhamdulillah tey xale bii tey xale bii génnee na ko ci daayira bot génnee na ko ci daayira ci daayira nafiq génnee na ko it ci daayira nafiq kon dugg na ci daayira ragal yàlla kon dugg na ci daayira ragal yàlla na itam ci daayiraam gëm yàlla ak dëggu dugg na it ci daayiraam gëm yàlla ak dëggu yàlla fa sax yàlla fa sax dund fa dee fa dekki fa dund fa dee fa dekki fa it xam xale bii xale bii alxuraan ji yàlla ci xam-xam topp alxuraan ji yàlla ci xam-xam topp yàlla yàlla ci barke topp yàlla ci barke topp yàlla yàlla jub bay jubal ñeneen yàlla jub it bay jubal ñeneen maam Alaaji Abdoulaye Niass kon maam Alaaji Abdoulaye Niass maa ngi jégalu kon ci li mu wax xale bi mi ngi doon jégalu kon ci li mu wax xale bi Alaaji Abdoulaye Niass kon maam Alaaji Abdoulaye Niass yal na ci xam-xam topp yal na ci xam-xam topp yaa rabbi yal na ci barke topp yal na ci barke topp yaa rabbi yal na ngay jub bay jubal ñeneen yal na nga jub bay jubal ñeneen yi yal na nga xam yal na nga xam yal na nga xam yal na nga xam yal na nga man yal na nga man yaa rabbi loolu yomb na yàlla sañ na ko mën na ko yal na ko yàlla yoolu yomb na yàlla sañ na ko mën na ko yàlla ko yàlla def yaa rabbi ànd ak wér gu yaram waa ànd ak wér gu yaram yàlla na ko yàlla may yàlla na ko yàlla may may ñu ko ñun ñëpp may ñu ko ñun ñëpp xam-xam boo ànd ak ragal yàlla xam-xam boo xam ne dafa na ko yàlla may yàlla na ko yàlla may yaram wilaaya goo ànd ak njub wilaaya goo ànd ak njub yàlla na ko yàlla may yaram barke boo ànd wasak barke boo ànd wasak yàlla na ko yàlla may yaram li jaaba boo ànd ak xabool ak fatu yàlla may. ci yàlla la ko may yàlla may yàlla may. may ko mbooloo mi yëpp may ko mbooloo mi yëpp yàlla. ñu ngi sant Maamar bi tey. ñu ngi sant bi tey. ci liggéey bu rëy bii. ci liggéey bu bi nga xam ne eh, Maamar bi tey. bi ma nekk ci kër ga fële. bi nga xam ne mu ngi ci kër ga fële. ca Serekunda. xamu doole de. xamu doole de. waaye lu métti. waaye lu métti. du ko bàyyee maa ngi seetlu bi Baye Sow Omar Touré bi ñu ko sampal këram ba ci yundum mi ngi seetlu Baye Sow Omar Touré bi ñu ko sampal këram jëla ci yundum Maawar bi tey amutoon doole Maawar bi tey amutoon doole jël na peel bi di liggéey jël na peel bi di liggéey xam ku ko bëgg a jël xam ku ko bëgg a jël mu ñàkk ndem ne du ko jox mu ñàkk ndem ne du ko jox peel ba loolu mooy fulla loolu mooy am fulla moom dafa mos a nangu moom Maawar bi tey dafa mos a nangu dafa mos a a xaajatikum nil na mahabatukum wal usnu taxiqu qadal ayni ahyaana dégg nañ la dégg nañ la euh, maanaam euh, euh, bëgg nañ la bëgg nañ la njëkk ñi lay gis njëkk ñi lay gis nopp nopp dana danay danay danay sopp danay sopp njëkk bët njëkk bët ay jamono ay jamono alhamdulilah alhamdulilah sama nijaay Aliou Cissé nijaayam Aliou Cissé at moom lañ jundee mën a jundee xale bi de nag da ngay góorgóorlu nag yow tamit da ngay góorgóorlu nag lislaam beeg tariqa beeg faydu bi lislaam beeg tariqa beeg faydu bi nga yóbbu ko ci sa askan tasaare ko fa nga yóbbu ko ci sa askan tasaare ko fa yàlla defal la loolu yàlla yàlla defal la loolu yaram defal ñu ko ñëpp euh, ci waxtaanu sang bi ci waxtaanu sang bi de Ousmane Ndiaye Seydou Ousmane Ndiaye Seydou Ousmane Ndiaye euh, ñu ngi koy siyaare moom itam waxtaanam rafet na. ñu ngi koy siyaare moom itamit waxtaanam rafet na loolu. wan nañu. wan nañu. ne duñ mën a jëriñu mukk. ne ñun duñ mën a jëriñu mukk. lu may ñaan mag lu may rek ñu ànd ak mag ñi. mag ñi nag. mag ñi nag. Cheikh Tidiane Sy Maktoum radiyallahu anhu. Cheikh Tidiane moo doon wax mu ne. moo doon wax mu ne. ñoo ñu gën mag yi démb. ñoom naar yi de ñoo ñu gën mag yi démb. waaye ñu leen gën mag yi tey. waaye tey ñun ñii ñoo leen gën mag yi tey. alhamdulilah tariqa Cheikh Ahmad bi may dund man tariqa Cheikh Ahmad Tidiane bi nga xam ne mii ci la dund ñun ci la ñu ci la ñu dund ñu ci dund ci mbooloo mi ñun di ñu bëri it ci mbooloo mi di ci dund Baye Niass wax ne Baye Niass wax ne ñu ngi ko fondement ci ñu ngi ko fondement hee ci sunna ak ci alquran ak ci alquran te lépp tariqa bi alquran la te lépp tariqa bi alquran la askaria askaria bàccee nañ ko defee sax ci tarixa bi ci alquran la bàccee nañ koy defee sax ci alquran la yàlla wax na yonentu ne ko yàlla wax na yonentu ne ko wàccee nañ ci yow alquran wàccee nañ ci yow alquran li tubayyina li googu li tubayyina googu laam fanweer la laam fanweer la kontal taa ñeenti téeméer la taa ñeenti téeméer la baa ñaar la baa ñaar la yaa fukk la yaa fukk la nuun juróom fukk la nuun juróom fukk la astaghfirullah téeméer la. astaghfirullah téeméer la. salaatu ala nabi téeméer la. salaatu ala nabi téeméer la. laa ilaha illallah téeméer la. laa ilaha illallah téeméer la. sooy wasifa. sooy wasifa. listixfaar fanweer la. listixfaar li ngay wax fanweer la. mooy lam nga. mooy lam nga. salaatul fatihi. salaatul fatihi. juróom fukk la. juróom fukk la. muy nun nga. muy nun nga. xayla la bi. xayla la bi. téeméer la. téeméer la. ak nga boole ko ñetti téeméer bii. nga boole ko ñetti téeméer bii. muy tàttombe bi. muy tàttombe bi. jawharatul kamal jawharatul kamal fukk ak ñaar la fukk ak ñaar la muy muy muy muy yaaji ak baaji muy yaaji ak baaji foofu la Seexu Tijaan foofu la Seexu Tijaan yi génne askaru tariqa bi génne askaru tariqa bi yàlla yàlla wax nañu ne yàlla wax nañu ne jëfandiku leen ci moom ak yàlla jëfandiku leen jëfandiku ne leen ci moom ak yàlla waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu hablillahi hablillahi nag ahlu sunna ahlu sunna firee nañu ko firee nañu ko nañ ki ne mooy ahlu sunna na d'accord na de firee nañ ki ne nañ ko ne mooy aljamaa d'accord na moom mii na nañ ko it ne mooy laa laa ilaha illallah fanweer la soo ko seetee ñeent fukk la loolu soo ko juróom-benn fukk ak juróom-benn la allahu juróom-benn fukk ak juróom-benn la loolu téeméer ak juróom-benn la Tidiane nas kurusam gi de. ci la Seexu Tidiane nas kurusam gi nga xam ne moom la Tidiane yi di téye. per yi téeméer la. per yi téeméer la. digg yi juróom la. digg yi juróom la. ak bi la di téeméer. ak bu mag bi nga xam ne moom la. muy benn. muy benn. muy téeméer ak juróom-benn. muy téeméer ak juróom-benn. mooy xabdulaay. mooy xabdulaay. ñu doon joxoñ. ki nga xam ne moom la ñu doon joxoñ léegi. ku jàpp ci kurusam Seexu Tidiane. képp koo xam ne jàpp nañu kurusam Seexu Tidiane. jàpp nga ci moom ak yàlla amul sikk. bu mag yàlla nag. bu mag yàlla nag moom. nga téye ji. nga téye ji baaxul baaxu na. te yàlla du ba. te yàlla moom du ba mukk. ngeen di xajante ngeen di xajante. yaa koy fekk de. yaa koy fekk de. ñaari man du fi nekk de. ñaari man bi ñu fekk bi ñu nekk mukk. ñaari man. ñaari man. ñaari anaan yëtu. ñaari anaan yëtu. nga ne anaa mu ne anaa. nga ne anaa mu ne anaa. du fi nekk de. du fi nekk de. yow boo demee rek. yow boo demee rek. jeex ci moom jeex ci moom. kon moo tax tariqa bii. kon moo tax tariqa bii. ku ko jàpp. ku ko jàpp. donte ci sa xarxar la. donte sax ci sa xarxar la nga ne rek. fa nga xamee yàlla. fa nga xamee yàlla. ci sukkuraatul mawti. ci sukkuraatul mawti nga am hijab kon sant yàlla ci loolu kon sant yàlla ci loolu oustaz bi tey oustaz bi tey sant yàlla jumaa ji sunna rek lañ fi gis sant yàlla jumaa ji sunna rek lañ fi gis la ko tàmbalee ci noddu ga la ko tàmbalee ci noddu ga la ko tàmbalee ci liqam la ko tàmbalee ci liqam gi ak ci julli gi ak ci julli gi jumaa yu bëri jumaa yu bëri jumaa jumaa dafa am saar yu ci siiw dafa am saar yu ci siiw saar yu ci siiw bokk na ca bokk na ca jumaat jumaat munaafiqoona munaafiqoona ak saar yi nga jullee ak saar yi nga jullee ni le terewul nag teewut nag. foo julee wét na. fépp foo julee ci alquran wét na. waaye loolu ci siiw de. waaye loolu moo ci siiw de. fekk nañ. fekk nañ. nga jëfandikoo lii ma siiw. nga jëfandikoo li nga siiw. nga jëfandikoo ci li nga raaj yi. nga defee ci nga nga xam ne mooy jëlawaay bi. mooy ràjji mooy ràjja ràjji mooy loo xam ne ràjja mooy loo xam ne aw layam dëgër na këng aw layam dëgër na këng masuur mooy loo xam ne masuur mooy loo xam ne ñu ko wax ñu ko wax bëri nañ ñu ko wax bëri nañ lool kon alhamdulilah neex na ma lool it nag neex na ko loolu it nag ba ma déggee bisimilahi rahmaani rahim ba ma déggee bisimilahi rahmaani rahim nga tàmbale ko su julli ci fatiha ci fatiha ga ci wàllu maanaa ci wàllu maanaa ci wàllu baatin bopp ci wàllu baatin bopp ci fatiha julli goo xam ne tàmbalewul ko ci fatiha wétut nag wétut nag de tey yonent wax na ne te yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kullu amrin zibalin kullu amrin zibalin laa yubda'u fihi bi bismillahi rahmani rahim laa yubda'u fihi bi bismillahi rahmani rahim yi foofu ajsamu foofu ajsamu nee na bépp mbir moo xam ne nee na bépp mbir moo xam ne ñu koy tàmbali am na solo am na solo tàmbali ko ci bismillahi rahmani rahim ñu tàm tàmbali ko ci bismillahi rahmani rahim mbir moomu mbir moomu dagg na dagg na amul barke amul barke jas jas mu boobu jas mu boobu yow mii ma ma dégg ngay wax. yow mii dégg ngay wax léegi man Ndiaye. sa wax moo ma xamal ne borom xam-xam nga. sa wax moo ko xamal ne yow mii borom xam-xam nga. jas mu boobu. jas mu boobu. xam nga mooy dagg kuli. xam nga mooy dagg kuli. gis nga yonentu wax na ne. gis nga yonentu saa sala wax na ne. yàlla rus na. yàlla rus na. nit tàllal loxoom. nit tàllal ay loxoom. ñaan ñaan. te yàlla defalu ko ci dara. te yàlla defalu ko ci dara. ndokk nag. ndokk nag. muy koo xam ne. muy koo xam ne. xam na xam la ca loxo xam na la ca loxo. gis nga euh, Fatiha. gis nga Fatiha. yàlla nga ko def ci loxo. yàlla nga ko def ci loxo. boo nee bismi. boo nee bismi. laay laay. rahmaani rahmaani. rahimi. alhamdu alhamdu. lillahi rabbil alamin. alamina. rahmaani rahimi. maliki yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalliin jeexu dam jeexu dam kon poli baaraam yooyu. mooy Fatiha mooy Fatiha. bépp Fat xam ne. bépp Fatiha boo xam ne. amul basmala. amul basmala. mi ngi mel ni. mi ngi mel ni. loxo boo xam ne da ngaa dagg ñeenti pol yi le. loxo boo xam ne da dagg ñeenti pol yi le. ñeenti lag mu yi bu dogee. ñeenti lag mu yi bu dogee. bu dogee bu dogee. mooy jas mu boobu yonent doon wax. mooy jas mu boobu nga xam ne mu leen di soxla jox. imaam kon imaam. saxal ci ci bismillah rahmaan rahim de. nekk de. du ci nekk de. Ousmane Ali. Omar Ousmane Ali. bokk ci alquran lu nekk. lépp lu bokk ci alquran. du ci du ci ne. du ci ne. te yàlla waxal na boppam ne. te yàlla waxal na boppam ne. wattu na alquran. wattu na alquran. ba lu ci bokk du ci dugg. ba lu ci bokk du ci dugg. kon basmala ci la bokk. kon basmala ci la bokk. nañ ko jàngaale. nañ ko jàngaale. te sax de. te sax de. Malick moo sib na ko. Malick sib na ko. waaye nee na soo ko yelloo sëbatu ko. waaye nee na soo ko yelloo suutu ko. soo ko waxee ngir génn ci wute bi sëbatu ko. soo ko waxee ngir génn ci wute bi sëbatu ko. saa fi wane aaya la ci Faatiha bëgg wax sa julli yàqu la. saa fi wane jullit yàqu na. yàqu na naa feew na dafa war. naa feew na dafa war. indi ma sama sopp ko. indi ma sama sopp ko. Malick rek moo ko sib. Malick rek moo ko sib. waaye bu dul ko ci ci ci sa ko ci sa tarixa bi. kon ñu boobu. kon dee man. moom dee moom. képp ku mu julli. képp ma dégg nga ne alhamdulilah. mu dégg nga ne alhamdulilah. alquran ja neex neex. lu alquran ja neex neex. def naa sama julli boppam. dox na julli moom julli julli boppam moom. def naa sama julli boppam. jul benn julli boppam moom. ndax wóolootuma. ndax wóolootul. sëñ bi barab bi le. sëñ bi barab bii. lépp ngeen fi jaamu yàlla ci wax ak jëf. lépp loo xam ne jaamu ko ci yàlla ci wax ak jëf. yàlla nekk raw waay. yàlla nekk raw waay. yàlla nekk njëguwaay yàlla nekk njëguwaay yàlla nekk muccuwaay yàlla nekk muccuwaay xale yii lee xale yii yàlla yàlla bëri seen kem yàlla yàlla bëri seen kem yàlla bëri seen kem yàlla yàlla bëri seen kem yàlla yàlla bëri seen kem yàlla yàlla bëri seen kem sant nañ gërëm nañ sant nañ gërëm nañ wasalaamaaleykum wa rahmatullah تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا